jërë ngeen jëf ay dapor yi ci réew mi Karim Wade yàq na leen dañ ko ko waxal wax ji mi ngi ci xët mu njëkk observateur Pape Samba indil ma ko Thierno Alassane Sall jëwriñ gémme infrastructure ak wàllu transport démb ba muy janoog taskatu xabaar yi def na fa ay kaddu yu mu fa yëkkati journal bi xëy ko tudd ay révélation yamu ca ndax itam Mame mbay Niang bu APR ci xët mu njëkk yéenekaay bi mi ngi xam ne Karim Wade ci fi nga xamante ne ji moo di agence des aéroports du Sénégal aéroport Léopold Sédar Senghor ak aéroport euh, international Blaise Diagne doon na fa gagné lu mu gàtt gàtt téeméeri million ak juróom benn fukk ak ñeent bés bu yàlla sàkk barab yi di AHS SHS d'apport ak frapport journal nañu Karim Wade mañ doon naan moo ko moom mu koy jéem a weddi la ko gën a dugal moo di ay correspondance di bataaxal yoo xamante ne ji bindante na ko ak ñam jiite kër yooyu le populaire nañu Karim Wade li ñu ko waxal ci gàttal nañu ko mën a jàppee moo di seeñu na ay d'apport yi ci réew bu Sénégal le quotidien xëy dikk ak ñun ci waxtaan wu séex na ko ak Mimran ndax Karim Wade ba ñu ko ba mu set wecc moom Mimran ay kàddoom ci xët mu njëkk journal bi mu fay leeral la mu moo di di le ne musta moom bii ni ñu naan Saint-Tropez ñu ne di tawaay mu jël xaalis ko ki nga xamante ne ji moo di Karim Wade le nañu wax yamu ca de ndax am na ñoo xamante ne ji ci Karim Wade tudd na leen ci enquête bi ña nga moo di li leen Karim Wade waxal daal di koy weddi ba mu set wecc Sud Quotidien nañu waa APR la ñu gis dem ba ñu jël taskatu xabaar yi moo di Karim Wade des koo war a tëj nit ñi far noppalu la tax ñu war koo tëj ci imam Mbaye Niang wala bokk maam Mbaye Niang ci xët mu njëkk populaire muy xam ne ne tëj Karim Wade mbiru question sécurité nationale la mooy tax nit ñi am ci seenu kaaraange Karim Wade bàyyi ba di Abdoulaye Wade xëy di défendre doom ji ci xët mu njëkk observateur nee na li nga xam ne ñoo ngi koy def doom ji di Karim Wade di ko alda alde di ko topp ci tegul fenn ña koy def jubluwuñ ci dara lu dul bëgg koo sànq waaye na leen leer ne du beneen journal bu xëy ci mbiri aéroport moo di wal fajre aéroport Blaise Diagne ay njuuj njaaje ki tappale ki léexoor yu fa am yéene kaay bi xëy ñu ko tuddeel scandale en chiffres et en lettres lépp rek ngir leeral ko nga ci las yéene kaay Mamadou sekk mu parti démocratique sénégalais moom la séqal waxtaan ngir mu leeral ni mu dundee woon 25 mars ak it ni nga xamante ji noonu la gisee nguurug Macky la mu njëkkee moo dana doon cadeau bu baax ci askanu Sénégal ci mars bu dee ne Macky Sall la mu yeggalee wax ji nag mi ngi ci biir journal bi waaye yamul foofee ndax nee na Abdoulaye Wade ba mu fi indee mu doon firndeel mooy nit ñi bëggatuñu ko euh, Abdoulaye Wade keroog bu mu yëkkatee téléphone am woo Macky ne ko gaañ nga ba gouvernement mi nga xamante ne ji àndaloon nañu ko kenn mënu la koo nettali Macky sàll mi ñëw ci réew bu Sénégal ak li mu dig askanu Sénégal ne dina ko def moom Mamadou Seck ne am na yéene ji waaye nag boo xasee ba toog ci nguur la nga doon digg ak li mën a am du doon benn nañu ko benn benn ñu xooli yéen a kay yëngu ci wàllu tàggat yaram Sénégal ak Angola yéen a kay bi tous les sports xëy ci génne nii lii la wax Pape tegal ba ko nii moo di lan nee na match ba déjà commencé nañu ko lu tax mu ne gaynde Sénégal yi commencé nañu seen regroupement ca Paris la France observateur nañu tey ji euh, ci talaata ji la gaynde yooyu di yegg ca diwaanu Conakry gaynde Sénégal yooyu que leen di tàggat di Alain Giresse waa sport xëy di ko dànkaafu la tax yéen a kay bi nañu Alain Giresse am nay complications yoo xam ne bu ñu moytuwul ko yot ba tey ci xët mu njëkk waay moo di Eumeu Sène journal bi di laaj ndax ñoom ñaar seen face to face ak seen kàddu yi ñuy échangeante ni ñu koy doxalee ndax respect la wala ndax dañoo ragalante wala ndax ku ca nekk dafa am looy waajal sa morom eh, moom la sunu lamb xëye tey ji lii ne bi nañu big four bi ci lamb ji moo di kan tafatin borom taq ci ripp ak kii di Balla Gaye de Triple S doomi Double S ak ki nga xamante ji moom moo di Modou ak Eumeu Sène lii ne bi nañu Eumeu Sène mooy l'homme fort du big four noonu la ko journal bi xëy tënkee ma dem ci feneen mu di ci observateur waa waaj leen da am gan Pape andil ma xët mu njëkk observateur nit ñi gisandoo gan ñi nga xam ne ñoo war a gane ji Sandaga ñi ngi noonu njiit réew mi Macky Sall ak soxnaam Marème Faye Sall yéenekaay bi nañu samedi bii di ñëw promenade la ñuy def ci marché bu Sandaga mu ngi ci observateur jërë ngeen jëf